Zeyna Ndour moo ñëw AIBD ñëw accueillir si yaayam ñu noonu garder benn bouquet de fleurs ñëw accueillir si ki nga xamante ne moom mooy yaayam ci projet bi nga xamante biir orchestre tey lan la lay def maanaam le fait ni mu gagné waaw di kontaan rek li ma naan Viviane gagné wu ko ñun nii ñoo ko gagné ak waa Sénégal waaw ndax Viviane dafa doon koo xam ne ah, ni mu mel ak ñun dootuñu ko waxati ndax ku gis Viviane rek dina gis Jolof Band ci ginnaaw waaye dina gis Yaxma Thiam gis ni man mel moom ak ni ma demee ak moom moo waral sama teewaay fii ndax du benn du ñaar laa ko jël si fii. waaw ànd teeg sama waa ji mu Ouzin baay du benn du ñaar ah, ma ànd ak moom ñu ñëw fii ñëw teeru waaw. trophée bi nag bu ko jëlee maanaam Sénégal gépp la ko jëlal mu nekk mbégte boo xam ne ñoom dañ koy partagé ak moom mais est ce bi ngeen ko doon liggéey ak moom c'était difficile. waaw du lu yomb mais xam nga moom li may wax rek moom euh, fi mu jaar la. du jaar du suma jigéen sama baay boobu ah amul bu liggéey ba pare def variété fële ca Mbour kon donc Viviane euh, qualité bi ku koy wax doo fi jóge waaw ñun ñuy liggéey ak moom di nekk ak moom ñun xam na moom mooy kan ak ki mu doon moo tax lii bettuñu li ma naan du sens mérite la da ko mérito ndax Viviane li may wax rek parce que ñun dañuy génn léeg-léeg ñu dem Cameroun léeg-léeg ñu dem Côte d'Ivoire Guinée xam nga dañuy ànd ak moom Gabon waaye nañ ko fa def walla Mali ni ko waa Sénégal def boo demee ci dëkk yooyu léeg-léeg lu ko raw lan ko koy def waaw kon moom li may wax rek moom Dibia ba léegi li mu war a def sax defagu ko waaw man gis naa loolu mais des fois ñu gis tamit euh, lu bëgg Sénégal dañuy kii li nga xam ne moo di solo ba la fois passée am na benn faille bu mu defoon ba Sénégal yi doy wax. waaw non loolu erreur la rek xam nga te mooy li may wax léeg-léeg xam nga nit moom dañuy dañuy fii fii Sénégal pour nga pour nga pour nga fii waaw yombul quoi mais moom estal waaw Viviane moom dafa am ay lugam boppam li nga xam ne moom lay sañsee waaw xam nga tey bu dem Amérique Beyoncé xam nga keneen ak keneen xam boo xoolee seeni i sànce mais nag fii Sénégal dafa am lu mu moom te wax dëgg yàlla mi ngi koy doxal ndax Viviane tey yéen nii jigéen dina sol dara suba ngeen dem wut ji ndax macha allah lu mu sol mu jàpp ko waaye nag keroog loolu am noonu xam nga caméra léeg-léeg nga sol benn yére mais bu ci flash yi dalee da ngay foog ne yére bi noonu la mel fekk ne flash bi moo def loolu. waaye li ma la mën a xamal ne Viviane yiw la ku baax la ku nangoo liggéey la am jom fonk ñu ñun téye ñu moo waral tey suñu teewaay ñu bàyyi lépp ñëw fii. wax waaw mooy li ma wax sànq rek Viviane bu may wax ci moom du ma fi jógee muy sama xarit di sama jigéen di yaay booy sama papa yar ko. que Super Étoile ak sama papa Yamath ki nga xam ne moo nekkoon ci ci euh, Étoile Dakar muy Yamath Thiam di ku baax moom Viviane bu may wax ci moom ak fi ma jaar ak moom duma fi jógee mu yar ma nag waaw ndax defe naa ni Viviane leen ma def ak moom vingt waaw kon xam na ne vingt ans boo ko jëlee samay at li ci dem dootul bari kon yàgg naa ak Viviane mu fonk ma nag teg ma place moo tax du ko weccoo kenn ku xam yàgg ma caam xam ne dinaa dem nag di tëggal ay nit waaye bu Viviane xewlee du ma tëggal kenn waaw li ma li ma dund ak moom lu bari waaw ci ay bari waaw bëri na bu ma koy wax bu ma fi jógee Viviane li ma dund ak moom ci lu ci mbëgte ah, bànneex na waaw ñu dem ci yoo xam ne da lay wóor ne fii nii mënoon nga tëgg musique bay bëgg a dee na saal yu bëri dem nañ ko ci Europe saal yu mag saal yoo xam ne da dem léegi fekk ko vingt xam nga loolu yomb xam nga kon dañ koy ñaanal rek pour

ndax mi ngi ci tànk yooyu xam nga ku xamul rek mooy wax mais mi ngi ci tànk yooyu waaw ndax li naan cin bu naree neex bu baaxee neex waaw doxalu jaay def ne looy def te xamoo ko boo noppi koy defal waaw mariage bu baax la da koy indi man séenaati séenaati ah, sama papa séenati mm-hmm. mu jël ay taraango yu bari nag jox ñu ko ci man sama papa waaw biñ ko tëggalee ba mu pare jox nañu ay fekk jox nañu xaalis ba pare yëkkati ay jasneer jox ko sama baax waaw kon dañ koy ñaanal moom it bu baax wax dëgg yàlla day jox liggéey ak bu ñu woowee studio wax dëgg yàlla def album dama ci xam nga mu sekk man ay taranga comme li may man at yëpp naa sekk gàmm waaw mais ci Viviane laa nekk ku xam Viviane xam ko yaat ma jàmm waaye nag waykat ku ciy def album rek di nga ne yàqu kaay ma ñëw barke te du yàq dara jërëjëf jërëjëf jaratul laaj ah gis nga nam mu indi sigil Sénégal sigil jigéen yi sigil population bi ñëpp ñëpp kontaan nañ macha allah ngir yàlla taxaw leen